micro yi. micro yëgle yëgle. <coughs> mais yéen doo leen doo leen réglé kii mën a ah. Ah, ah. tamit kii avec son mu may jàpp sa liggéey mu may mu may jàpp oui kookan la waaw. ma dem mu ne ma ndey fa di ma ne ma courage bu ma la xamee woon damaa bëgg nga dolli ko ma ne ko tey laa gën a am courage maa ngi sant yàlla suñu borom nag parce que dossier bi man comprendre ma décision yu ñu jël mhm. mais xam naa ne dossier boo ci génnee complicité de viol bi ñu doon may toppee ñu génnee ko ba mu set. insultation de débauche bi ñu génnee ko ba mu set. leneen lu ñëw tamit ragalatuñ ko. dañuy dénk yàlla suñu borom bi parce que ñëw nañ si jàmm ñu ngi ñibbi si jàmm. ñu ngi sant yàlla suñu borom kon kon yàlla attan na leen yàlla attan na la ak. Adji que moom moom da ko waxoon ni ko Ousmane ko violé moom aussi mu lay toppee ni ko da nga ko doon defloo ñaawteef. yàlla atteegul ma sax ak moom parce que maa ngi waat si yàlla suñu borom bi ne liñ may wax dara laa ci xamul. dara laa si jegewul. ku taxaw tribunal nga gën si si ëmb bi nga ëmb nga xam ne li ngay wax dalaa ñor te dama taxaw tribunal ma ne lii bu fekkee li nga may toppee dama ko def sama doom bi nangam ak nangam. nga xam ne yàlla suñu borom bi rek laa yaakaar. te yàlla laa wóolu. te yàlla laa dénk sama bopp si kanam. yàlla laa dénk sama bopp si ginnaaw. yàlla laa dénk sama bopp ci lépp. te dossier bi gëm naa ne yàlla rek moo si teg loxo. yàlla suñu borom bi kese moo si teg loxo bu fekkoon ne yàlla tegu si loxo lii lépp du si am. moo tax moo tax damay sant yàlla suñu borom. d'accord Ndeye euh, léegi waxtaan nga ak sa avocat nee nañ euh, deux ans euh, léegi lan wax na la ni que li ñu la la la ci mën a fekk lan moo la ci mën a. loolu xaw ma ci dara. Mhm. lu ma xam expliqué naa ko. Mhm. xam naa daal maa ñëw naa sama kër jóoy ko naa sama kër huit heures julli fa ñëw maa ngi ñibbi sama kër leneen nag. bu ñëwee rek ñu ànd ak suñu borom. d'accord merci beaucoup kon ñu bàyyi la nga nangam noppaleeku.